lam daan def rek lay def la kilifa yu teddi fi yim fi wutu daan def rek loolu lay wéyal saabu jamono mele ni mu mel toll ci ay tank-tank dan wëlbati ko wax ak nit ñi dolli leen ci jaamu yàlla tuubal ñu tuubal ko tuub gu sell nañ nañ tuubal yàlla tuub gu sell tuub goo xam ci ci xol ci sa ko jëlee wax ko ci saw saw làmmiñ jëfe ko ci say cër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 teggi ko luy xewal yalla xëcc ko luy jàngoro yar saafara ko luy safara lepp yalla sun borom xëccal ñuko ba lepp lo xamne mom la señ bi yene ñun ñu yàgg ko def kon dal ñi nga ñi dal foofu suñu kaddu sàkku ñëpp ñu ko dal and ak yar and ak teggin te kep ko xamne dang fi ñew timit and ko fa ay ay ndaw yo xamne dañuy ñëw di jang nga soñu leen ba la xam xamne barab juma ja du baneen barab ñu baye xel war ma ju baaxa baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh